nga xam ne raxas nañ ko ndakaaru daan nañu raxas tamit mbooleem li nga xam ne mooy mbedd yi pneu yi nga xam ne ñooy nekk ci mbedd ndakaaru yi loolee tamit nañu koy ramasser si week-end bi bi nee na gouverneur bu ndakaaru daan nay tere ñu daal jaay li nga xam ne mooy carburant ci bouteille maanaam détail gouverneur bu ndakaaru tamit daan nay tere ñi nga xam ne ñooy deux ñu daal daw maanaam moto yi bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa Dakar Dem Dikk ñoom tamit ko waral mooy atte xam ne moo war a dox Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Prodac yi Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang ba léegi pënd bi wuréegu la ndax deuxième round bi la ñu joué jamono ci cour d'appel bu Ndakaaru journal bi nee na fanweeri fan ci weeru mars la ñu tëjoon Ousmane Sonko ñaari weeri kaso yum du tëdd daal koy alamaan lu toll ci deux cent millions yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na sourd de vérité tey ji la dëgg gi yéen kaay gi nee ñi nga xam ne nag waa Bignona démb tàngal nañu Bignona ba bi dañu koo boyal jàmmarloo ak ñi nga xam na ñooy takk der yi yéen kaay gi di Le Quotidien yor yor xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne ñooy farandoy Ousmane Sonko yi bëgg ñoo bàyyi mu daal sedd ndax ñoom jamono ji dañoo engagé woo dañoo déterminé wu nee nañu nag danañu résister ndax li nga xam ne moom la ñi ànd ak Ousmane sunk di bañ maanaam ñu jaarale ko fi nga xam ne fii la ñu jaarale woon ma Mamadou Dia loolee mooy tax ñi nga xam ne ñooy patriote yi ñoom nag nee nañu duñu ko nangu tey ko nangu ëllëg ba ñu ñu ci nopp ñu sañum guerre farandoy ñoom nag jamono ji dañoo fas yéene résister maanaam defante lu ñu am jël yéen kaay gi du source xëy duñu xibaar naan ñu tey ji si altine ji lundi de tous les dangers ci ndakaaru ak yenn gox ci biir réew mi soo mooy tuulee surnal bi délibération xëy duñu xibaar naan ñu Bassirou Diomaye Faye tey ji la ñu koy daal di defeere tey ji la ñu koy jébal procureur journal bi nee na Ousmane Faye mi nga xam ne mooy coordonnateur Pastef dëkk ci Gueule Tapée tey ji convoqué nañu ko ci section de recherche waaye xamaguñu lan la def yéen kay gi de Le Quotidien yor yor xëy duñu xibaar naan ñu jàpp gi nga xam ne jàpp nañu ko Bassirou Diomaye Faye loolee na bu baax a baax ñi nga ñu yàpp Pastef nee nañu nag léegi Sénégal jóge na ci état de droit waaye ma ngi ci violence d'état yéen a kaay gi di réew mi ko di jenxëy ñu xibaar naan ñu Idrissa Seck ka kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko tax na ñi nga xam ne ay membre Benno Bokk Yaakaar la ñu nekk ci conseil économique social et environnemental jamono ji ñoom nee nañu mënatuñoo bokk di jaaroob taal ki nga xam ne mooy Idrissa Seck ndax ñoom nee nañu Idrissa Seck li mu def rafetul jaaduwul te ñoom li ñuy sàkko mooy mu jóge ci bopp conseil économique social et environnemental ci ni mu gën a gaawee membre Benno Bokk Yaakaar yi nekk ci conseil économique social et nee nañu Idrissa Seck li la jikkoo waaye nag Idrissa Seck lii dafay firndeel ne nekkul nit ku sincère yéene kaay gi di Walf Fadjri ñu xëy fekk fa maître Omar Youma nee na Idrissa Seck jamono ji defatul dara ci biir Benno Bokk Yaakaar journal bi de Le Quotidien nee na Idrissa Seck bu ñu ko dàqee ci conseil économique social environnemental bu mu leen bett Amadou Ba premier ministre bi daan wax na ñoom jamono ji mënatuñoo ànd ak koo xam ne maanaam day génn gàmm ak kuy ruube yéene kaay gi du Source A ñu xëy fekk fa Abdoulaye Diouf Sarr moom daan nay wax ñi nga xam ne ñooy ay ministre gouvernement dañoo war a génn ci gouvernement bi Idrissa Seck amutul place ci conseil économique social environnemental te politique dafa am loo xam ne moom la làmboola muy élégance di cohérence te loolee gisuñu ko ci Idrissa Seck yéen kaay gi délibération ak bés bi xëy dañu xibaar naa ñu élection présidentielle 2024 naru te yomb ci Macky Sall ndax am benn kuréel bu boo xam ne F24 lu tudd défense de la démocratie ak xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum di bés bee nee na kuréel gii di F24 ñoom Aminata Touré ak Ousmane Sonko ak ñeneen ak ñeneen a seen bëgg-bëgg mooy pousser Macky Sall mu génn ci lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature waaye ñu supprimer article 29 30 57 ci code électoral bi waaye tamit parrainage bi ñu daal koy supprimer yéen a gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu CUSEMS muy kuréelu jàngalekat yoo xam ne ñoom jamono ji mer nañu ba mara détail yi waa CUSEMS jàngalekat yi ndax nag ñoom